La région Tamba nga xam ne région bi def dugal nañ fi euh, juróom-ñaar témèr ak juróom ñett millions yo xamné euh MEC approvac bu tamba kunda amna ci juróom fukki millions li ci dess ñu jox ko subvention acteur économie sociale et solidaire mu tollok ci ñaar fukk ak juróom ñett millions euh, li ñu aussi ko fi moy comme liggéey bi dañ ci lekkelo ak poste pour ñi wara jot subvention yi ñew nañu fi ci service régional poste Tambacounda ànd ak ay bénéficiaires pour mën xol dispositif bi ndax poste dañu waxanté won ak ñom ñu am service bu gaaw bu simple mais bu efficace te tay lolu woné nako ndax biñu tambalé tournée yi légui def nañ fukki région té euh, ci euh, information yi ñu jot lu région Kolda Ziguinchor ak Sédhiou nga xamné fa lañu juggé ci week-end bi ñooñu ñoo tambalé gul fay mais yeneen région yaa ngi fay. 300000 francs yi nga xam ne mooy tey jot nañ ko ci mais euh, du ministre Jara Iyane Cham vraiment loolu ñu ngi koy santé di ko ndax ndaxte yombul liggéey bi li li liggéey nga sant nit liggéey mu def ko yombul mais Jara vraiment ñu ngi koy jaajëfal Jara nak vraiment ni la mën a mel parce que xam nañ ko bu nga xamé du tay ci ci le terrain loolu tay bu ñëw ba Tambacounda apporter un soutien euh, pour les migrants euh, loolu vraiment dañ ko ci sant di ko ci gërëm di ko jaajëfal vraiment.